tey ñu ngi leen di toppal moo géet ah defoon nañ ko daaw fekkee déwén ñu fekkaat fi sunu yaay ji ah seexu yàlla bi ah jigéenu Baye Lamine Thiam séeri umi jànqa ah ah càppaacoli bi borom Espagne ah ndaanaani ndaanaani ah Baye Lamine maa ngi lay ziyaare bu baax a baax a baax kenn du moom moom Baye Lamine Thiam ah ñu ngi toog nii ndeysaan ak sa jigéen ah ah seet si woon tey sa jarbaat ah, fas yéenee waxtaan ak moom yaa booy ñu ngi lay ziyaar lay di la ziyaar bu baax baa yaa ngi am jàmm maa am jàmm bëri. ah daaw ñëw nañ fi ren tamit ñëw yàlla defaat na ñu ñëwaat fi fekk la fi di ñaan yàlla yàlla nañu la fi yàgg a fekk nga fekke lépp tey sa doom am combat di ko waajal la set. Mm. lan ngay wax ci combat bi ak lan ngay wax waa dëkk beeg ñi nga xam ne mooy village nan dañ koy waajalee ak ñi ngay woo pour ñu jàpp si di wax alhamdulilahi rabbi alamin rek di la nuyu bu baax baax baax di la ñaanal yàlla ñëw nga fi daaw ñëw fi ren yan na nga fi ñëw at yu bëree bëri ci barke yonent bi tey jii combat bi nga xam ne moom la sa doom am muy le 7 mai daanaka ñëw na weer wi xaaj na ndax tey la le 17 weer wi ñuy jëm bu amee juróom-ñaari fan lan ngay wax mbokk dëkkandoo yi ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ak ñi nga xam mooy waa village bi li nga xam mooy Île du Saloum yëpp lan nga leen di wax pour ñu jàpp mm. di nuyu sama mbokk yépp rek sama mag yi nga xam ne awma lenn lu dul ñoom ndax ku ñemee dañ laa dee di ñaanal sama mag yi sama taawu yaay bee ci caat ñoom ñi masa ñi ma bokkal ne di leen wax ñu ñaanal seen doom am na combat te ñaan doomu la soxla yan na ko yàlla may ndam su ko amee yan na ko jig ndax dama koy wax chaque jour maam boo góorgóorlu rek am lu bari ndax nit su amee weeruwaay du neexa ba ma wax te man benn mag bu góor rek laa am te dafa bugg ay jarbaatam ñëpp muy Lamine Thiam ku am bés mu taxaw won la ne maa la ko gën a bëgg yan na ko fi yàlla bàyyi ba mu lekk jëriñu jabootam ci barke Yonent bi di woo ñëpp di gërëm waa famille ñëpp di jëlee ci mbaat ndax faali dama ko jural waaye ay yaayam a ngi famille mm-hmm. mbaat u mm-hmm. seen waa kër ñëpp mm-hmm. ma wax leen ñu ñaanal maam Fall yan na ko yàlla may ndam ndax tey gii bu nekkoon roi des arènes du ñëw sama kër famille la jëm te incha allah bu wàcc yoon bi dina fa yegg na fonk ñëpp faali dama bëgg fonk ñëpp bu gisee xale bu am deux ans sax na yaakaar ne moromam la ndax kenn xamut jox nit ñi cër jox leen respect di wax ak ñu mu war a waxaat su ko defee jàmm rek lay am ndax li muy def moom ñun dañ ko war a ñaanal rek weer ak weer le tax si deretam la nekk ci côté ndey ci côté baay làmb faale da koo doon kon na ci def la loolu rek la su ko defee am ndam dëgg loolu am na solo combat bi ñëw na ba pare de. Mhm. Fally est-ce que mu ngi ak lekk géeg naan yor mbër mi tënne de yaa booy ak weeru koor gi. wallaahi waaye ñun dañoo sant yàlla. Mhm. ndax yaay dafa foor. Mhm. dama leen di wax chaque jour man baaxuma maa am yaay bu baax. te fu ma toog sañ ko wax te fu ma ko waxee ñëpp ne est ndax damaa nekk xale doon gis sama yaay di togg ba mu neex. mu joxe ko ba ñun barke Sëriñ Bàmba daf ñuy siimal cere ñu lekk. loolu laa tàmm man su ma sañoon damay bëgg di togg di jox ñëpp la lekk su ma ko amul sax wuti ko kon faali ah mu ngi jéem lu man de cinq heures du matin dina jóg dem sept heures bu nit ñi ndogoo dina dem balaa muy ñëw vingt et une dina fi fekk nag lekk bu doy amuñ dara waaye ñoo ngi jéem moom daal moo des ci fulla ji ci côté bu ne nag ñun ñu ngi koy jàppale ci moom daal la des nga xam ne dafa am ginnaaw mu góorgóorlu ku ñëpp yaakaar te gëm sa bopp su ko defee rek chaque jour yàlla dina ko may ndam moom. Mm-hmm. incha allah jërëjëf yaa mm. maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm. Mm-hmm. taw tawféex ak taysiir ci barke Sidna Mohamed. yan na ngeen fi ñëwaat ci barke Sëñ Fall. yow maa yow dama laa bëgg dañoo bokk Sëñ Fall. oh nee naa leen Sëñ Fallu kese. Seexu Xadim fii kër murit la. Ah, ah. faale fi nekk faale fàllu la sëñ Abdou Baaxe Mbàkke sëñ Mamadou Sowa Are uh-huh. ma am ñaari Muhammad oh. uh-huh. sant yàlla rek kay waaw waaw ma ne ko kon mu ngi noonu këru murid la ñu ñëw tey ci nee naa ko sëñ Fallou fépp sëñ Fallou fa ba faaw tey ak suba man nit damay woo sax wax ma soxla ma ne la ni allo nga ni ma naam man la sëñ Fallou ñëwagul coupé teg sama téléphone ni xifeet xool sama téléphone fekk sëñ Fallou ñëw man la woo la ni la kar ni la am ni la sëñ Fallou ñëw na ku weddi na laaj fondation sëñ Fallou barki dee moo njaay bi ñuy defar ndogu jëwriñ daf maa woo ma ne ko soxna si munu ma naam ko sëñ Fallou ñëwagal damay nelaw bàyyi ba ma nelaw ba yeewu bi ma fekk benn waay envoyé message ni ma sama numéro moo am wéeg waaye dama lay jox suukaru koor ko soxna si mu ne ma naam ma ne ko sëñ Fallou daa mel ni ñëw na ma mu ma egsi na bu yàgg man sëñ Fallou Fallou kese sama lépp sëñ Fallou la maa la wax loolu alaaji Fallou maami sëriñ Fadal sama waa jërë ngeen jëf ba tey rek ah, ñu ngi tey dañoo seet si moo géet ah biñu seet see moo géet nag fekk fi kenn koo xam ni sunu nit la ñu yàgg lool di ànd nee naa la ah, ah, doomi buur géwal la am dégg-dégg xam nga bokk si famille bu baax macha allah ndax kuñ ni famille Cheikh Samb nga bokk ah alaaji Assane Niang ñu ni de seex mbay Ndiaye Samb ah di ziar saat bu Samb instant ñoom ñëpp daanaka ñu nga saat naan wa xayaatu sérif di ñaan yàlla lépp lu fa waaye ñaan yàlla na ko yàlla nangu kon dama ne la kooku du ku ndaw yàlla def tamit mu am jaar-jaar yàlla def tamit mu nekk taalibi Serigne Babacar boo xam ne nii nee naa la Serigne Fallou lay noyee jëlaat taawam duppee ko Serigne Fallou ah nee naa la nekk nit ku baax ah kon du ñu def lu bàyyi ko mu nuyoo ak ñu seetaan Zilo TV ak biir Arène TV ñu daal di waxtaan ak moom ci lu ndaw ak ki nga ne moom lañ seeti tey lan moo waral relation bi ak lan moo waral ànd bi ñu ngi lay ziar man nog laay wax nag de nog ziare naa la. waaw nooy lay dolli ziar. bàyyi jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. nuyul askan wi lay seetaan. waaw di wax askan wi asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen ziar si weeru koor bi. di ñaan yàlla lépp loo xam teen waaye def na ko si rek. yàlla na la ko yàlla fay. ñi woor yàlla na yàlla fay seen koor ñi wóorut yàlla na yàlla fay lépp parce que ñun ñëpp ay jullit lañ. tàngoor bi rek dafa doy koor. kon yàlla na yàlla xeeb dool yi. yàlla waaw tey ñu fekk la fii kër moo Gates lan mooy relation bi yéen ñaar ak uh, tey ji lan moo waral teewaay bi fii. waaw teewaay bi li ko waral yàlla la rek ak yonent bi. parce que géej lañ dajee. benn jour ma demoon foofu am yu ma doon defar foofu. xam nga rek ñun moom fu ne la ñuy dem. bi ma demee mu ànd ak benn booyam di entraînement si. Mm-hmm. fekk ma ma toog noonu mun ma yow ma a dama am combat danga see war a jàpp. nga xool nga xool nga xam ne kii bopp bi dara ngi si parce que nit nga gis ko nii rek du ñëpp la ñuy gis rek dugganteeg ñoom xam nga nit bu nekkee si yoon yàlla da koy jaar da koy booleeg ki mu war a àndal pour dem tey mu ngi mel nga nekk si lëndëm rek di làmbatu ba daj tors taalee rek da ngay gis fi nga jëm xam naa ne dina dem nag mu ngi si yoon quoi parce que nga dëyeeg nit nii rek ni ko kaay ba mu ne nga ko yow dama am combat da nga see war a jàpp pour ma daan. boo ci jàppee rek ma daal man ko incha allah mun ma amal ko côté yëpp nañ ci jàpp soobee amul benn problème waaw loolu moo la suñu xamante boobu ba tey nag bàyyiwul waaw di sant yaayam ju baax ji nga xam ne amul benn problème boo gisee nga yaakaar ni sax moom sunu moroom la loolu oyof moo ko waral jël doomu jàmbur yi def leen comme say comme ay doomam loolu rek moo ñu boole du leneen yàlla daal ak yonent bi te man ku ma xam-xam ne man amu problème man. jàmm rek laa xam parce que famille bi ma bokk la alxuraan la nga xam liggéey jaamu yàlla kon sant yàlla quoi. waaw di nuyu sama doomu nday Baye Sall bu baax a ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm. di ñaanal sama doomu ndey bii nga xam ni. moo am combat man xam naa ne day daan. incha allahu rabi dénk naa ko sëñ Babacar Seck sëñ Fallou bi mu tuddee sama taaw. xam naa dina am ndam incha allah. te ngi ci kanam bu baax a baax sax. waaw Madou moom muy wax nag moom man xam naa parce que yàgguma ak moom mais xam naa ne ku ko bëgg la franchement Fati bi ma koy gis keroog ñoom ñoo ànd ñett ma xool ko mais boo boo xoolee Fally bët boo ko war a lay xoolaat kooku loo ko jàppoon na ko jàppaat diis parce que sa nit la waaw sa sa rawaan la quoi daa bokk si yow man na du ma ànd nit si hasard noonu la yàlla def man moom bu ñu waree ànd bu waree baax rek da nga may gis bu nar sa baax doo ma gis de. sama sax tey bi muy dem ndar kër ga barki Seydina Mohamed maay ta maay caatam mais man kese la yee moom ne waa mu ne ma maa ngi dem ndar yaa fi nekk kër gi yaa gën a tuuti samay doom mais yaa fi ne lii yëg lii yëg lii yëg lii yëg lii moo fi nangam nangam dem na man ko demal ak jàmm di ko jàmm sama kon moom moom bu xewlee lii woo ma ma dagg sama yite ñëw damay xam ne moom tamit jar na ko parce que am na bëgg-bëgg te bëgg naa dimbali yaayam te xam naa ni ah dinaa waam de incha allah ak barki weeru ko yéen tamit di leen ñaanal yéen cameraman yi yow Nogaye da ngaa yàgg bëgg bëgg làmb te làmb dalay fay li may wax baatin laa waxee barki Serigne Fallou làmb dalay fay de billaahi ku yabu teel a gaaw ñëw di jàpp si parce que da ngay dem loolu yàlla da koo def man baatin laa waxee du ma waxantu quoi. te incha allahu rabi li ma lay wax mu ngi suñu kanam yàlla na yàlla defal la jàpp yàgg ñi ngay àndal ñëpp incha allah léppay baax bu soob yàlla di ñaanal sama mbokk maara yëpp nag yàlla ñëpp am jàmm mais damay wax lancé benn appel ni leen yàlla bu la bu nëbboo ñëpp jox la da ngay nëbbu joxe. bu nëbboo ñëpp jox la. waaw da nëbbu joxe da ngay nëbbu joxe. loolu mooy lan. toog naan man la man la di fëgg sa dënn du yow. yàlla daa nëbbu man nëbbu keneen nëbbu keneen ngeen nekk mbooloo mu nëbbatu ñëpp ñoo la lii téel ma ko nga boo ko yoree nëbbu ko rek koy joxe ci suuf mais du loo war a fësal bu yàggee après yàlla day ñëw jëlaat yëfam xëy nag jëmu jaa fay nekk mais dara dootu fa des <laughs> waaw. a la. mu mm-hmm. nangu jox keneen. waaw. dégg déggati naa dëgg Souleymane loolu loo ci wax. Mm-hmm. jarul baaku jarul dara parce que yàlla moom benn bis rek lay baaku mooy bu ñu walee buftu bi kese taxaw ni kan kan mooy kan ana ngeen yéen yéen ay ñan man maa fi ne kon kooku kooku war a baaku benn bis boobu bu nëbboo ñëpp di yoot ba si yow di la téel ma lii non da nga ko war a téye par exemple sa papa bu nekkoon ci kër gi nëbbatu benn tàngal mu ñëw ba si yow nogay jox la ko mais doo génne tàngal bi naan faale tàngal bi paa moom ko jox kii gi noonu la affaire mel bagage yàlla moo koy joxe <laughs> du ñu war a fësal quoi loo xam ne dañ koy fësal man la naa man la duñ dara ñu ñëpp ay jaamu yàlla lañ rek wallaahu yàlla jaamu yàlla moo ñu fi wax bu karab la yàlla wax jaamu leen ma rek maa fi ne man yàlla maa fi ne ba dëgg ñëw kese mhm. kenn yoru fi dara yàlla yoru lépp ku am yàlla la jox kon nag yàlla yàlla def jaamu. waaw ok yal na yàlla def jàmm ah, tey nga ñëw ànd ak uh, moo génn numéro 2 ngeen dëgmal combat. ne nga uh, dénk nga ko kan sëñ Fallou ak sëñ Babacar ak sëñ Babacar si liggéeyu ndeyam ak barke baayam dina ko wàllu soobee yàlla. dina ko wàllu bu soobee yàlla. allah mais ba ma doon wax si combat bi nii te ñëwagul nii loo may wax wala doo si débat. non combat bi jarul ñu si débat oh. <laughs> parce ku ñëpp xam fooy dem doo yegg. Hmm. Hmm. amaan nañu kar la sax. Hmm. parce ay xale leen rek mën ngaa gis dara ni wax ko. bon mag jaar ci suuf parce que ku la jiitu si néeg moo la toogal fii parce booy doog a jóg ñaa la keroog ñeliñ waran ko ma mbaliñ booy doog a jóg da am lay wane pour ñu nangul la mais tamit du da ngay toog rek di ko wane di ko wane déedéet bu yàggee ñu ne ko tekkit boo yoree or naan or baa ngi chaque jour nga génn ko bu yàggee dañ naan ah booy bi or la yor dañuy wiiri rek këf ko daw mhm. foo toogati bu ñu la laaj ana or bi nga naan dañ kaa këf daw amatul njëriñ kon. ndax yoratoo ko kon loo yor da koy nëbb pour man moo tax bëgguma see xuus quoi man combat bi xam naa ni incha allah yàlla na def jàmm waaw wax ma waxi combat bi papa di si kanam laay wax na gaa yi baare gaa yi doon niim niimee fii moo nii na naa faale nii nangam nangam wax nañ xaar billaahi si télé laay waxee dañ def ndànk xaar. day baax de. Mm. incha allah incha allah jërëjëf cant ak gërëm ñeel la la. <laughs> jërëjëf ok maa ngi sant jërëjëf. jërëjëf ah, nee naa la da ngay ngand ngand rek waaye ma xamal ne doo ngand xanaa.